yi safoo di seetaan seen télévision Leral TV ak Leral point net tey nag ñu ànd ak yéen ci seen émission mais les voilées sont les plus belles tey nag comme yéen ñu ko doon laaj wax ne nañ génn moo tax tey génn nañ ñëw fii euh, sees benn soxna su baax mu fas ñu fas yéene ko dalal si suñu plateau bu leen gisee ni ma yànjee nii nag ngeen xam ne moom moo fi jaar euh, laata nag ñuy xus si waxtaan bi dañ koy daal di bàyyi mu nuyu chers téléspectateurs yi daal di joxe turam ak santam maa ngi tudd ndey Mbary Sarr dëkk fii ci géej waaye maa ngi nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan yépp alors euh, balaa ñuy xos si waxtaan bi comme que te yow yaa ma defar ba ma yànj ah léegi make bi nga ma defaral nii ban genre make la ak fan la mën a dem. waa bi ma la nii mun na dem fépp anniversaire mariage baptême fépp mun na fa dem parce que nit rek laa defaral make bu simple la mun nga mun nga koo yóbbu fépp fu la neex. d'accord yow euh, make-up nga jàng wala lan nga jàng ba agsi fii nii bay bay make-up non non jàngu moo ko dama ko sob rek ma mucc dugal <laughs> lan nga jàng maa ngi nekkoon euh, FASEC faculté des sciences gestion foofu laa nekkoon bac laa am dem foofu nekk ba licence 3 après ma bàyyi commencé dugg ci make bi. <laughs> scientifique yi daa daawuñu fas yéene de. <laughs> scientifique yi. waaw nga bu ñu doon nekk lycée dañuy wax scientifique. Eh, eh, ñi nga xamante ne ñoo nekk ci série littéraire yi ñoom ñooy gën a fashion ñooy gën a di bëgg ay affaire de make-up solo yeeg yooyu noonu waaye scientifique bu fashion moom man manqué soo gis. yii nga <laughs> mën ko ci juum nga ndax waa Fasek moom foofu moom boo fa ñëwaat moom. Ah. ñun ñoo yoroon fag bi moom boo ñëwee moom sañse foofu nga koy fekk bu baax xale yi jigéen bi ñuy ñëw dañuy defar ba mu baax make-up def ay bu baax sax ñëw ànd jàng seeg moom. kon scientifique yu yu révolué la ñooñu la macha allah alors sa parcours euh, professionnel ab avant ngay xalaat pour make-up bi lan nga mus nga nekk di def ay stage wala wala liggéey. beneen liggéey bokkul kii si si maa ngi doon def stage ci benn école bu nekk fii sur la place fii nii rek soriwul mu nekkoon foofu comme surveillant nekk euh, di def euh, di toppal tam ci comptabilité beeg yooyu noonu après ci laa demee ba dem daal ma xam ne. après corona bi yaa ma gën a xam. Mhm. daaw impacté jàng bi ñu arrêté ci laa arrêté nag ma ne man kii du man daal. Mhm. ndax seet la sa bopp feneen. Mhm. maa ngi doon déposé waale en même temps mais daal dama xool ba xool mais xam ne daal. nii man mode daf ma neex daf ma yàgg neex ay affaire mode sañse maquillage <laughs> yooyu noonu daf ma yàgg neex. n'est-ce pas yaa ngi jàng ba léegi. no arrêté na. alors nan nga koy gérer ak euh, ménage bi liggéey maquillage bi xam parfois surtout week yi la gën a bëri. Mhm. ay xew di am. Mhm. dina am ñoo xamante ne dinañ bëgg a maquiller wu bari fi. Mhm. tombeek monsieur mu ngi fi ak njaboot gi. nan ngay gérer loolu. loolu moom amul problème ndax monsieur ma dafa ma comprendre. alors mooy nekk sa assistant. merci <laughs> xam ne dama koo bëgg aussi su may maquillé fii des fois fii lay ñëw di bricole defar ay lampe ak lu ma xamul dugg si moom moom dafa ma comprendre te maquillage samedi lay ëpp te man damay dem parcelle foofu laay liggéeyee ci salon sama salon mag bi nekk foofu kalsum ko affaire mi ko bàccaani foofu laa nekk di liggéey samedi daf may bàyyi ma dem. parce que xam ne dañ ci sama sama dama koo bëgg dama koo bëgg te dama ciy fas sama sax tamit di suturloo en même temps. léegi loolu moo tax mu may bàyyi par samedi may liggéey di jàppale tamit suñu sama mag bi nekk foofu noonu ba mu amu ci benn problème. kon mbokk yi euh, ñoo ko déggandoo euh, ki nga xamante ne mooy ndey Mbéri wax nañu parcours am wax ñu jaar-jaaram euh, jàngam itam liggéeyam bi nga xamante ne mu ngi ko boole ak ménage am te yàqalu ko dara mu ngi si góorgóorlu bu a baax loolu lekk dañu koy bàyyiloo xel suñu mbokk jigéen ñi ñu bàyyi ko xel bu baax a baax xam ne que ni li nga xamante ne mooy ménage mun nañ ko boole ak liggéey waaye nag dañuy daal di xuus si waxtaan bi muy li nga xamante ne mooy yére voilé yi yére yi ñuy sol ak col yeeg yooyu noonu yëpp <laughs> cher gim cher léegi ah bu njëkk dina wax que ni boo amee jabaru bu muuru mooy gën a yomb nga am jabar boo xamante ne muuru waaye léegi gis nañ ne col yeeg yëpp dafa cher daal lan ngay wax ci loolu Ndeye Mbary. waaw boobu mën naa wax cher na cherul parce que moom <laughs> xam nga rek yeggul 100000 francs yaa ma gën a xam. <laughs> am na benn sayda bu ma déggoon mu ne jënd na kol 120000 ma xaw ma en tout cas ay saa yooyu àggoon na ca de. ah boobu de xamante yi ñuy muur xam nga moom fu muy jar <laughs> yeggul par rapport ak ñi nga xam te duñu muur li ñuy teg seen bopp yi. Mhm. mooy loolu xam nga ñoom li ñuy teg seen bopp ñun mun nañ cee am ñaata kol. ah la nag noonu mais nag bu demee ci wàllu yére yi yére moom voilé moom yéreem dafa war a chic dafa war a rafet. Mhm. waaw waru xool prix sax. waaye. Mhm. boo gisee lu rafet daal xam na lii nii yiw na jot na loolu moom sérieusement amul prix mais daf dangay xool rek lu ne xaj sa poche nga génnee ko jënd ko. xam nga bu njëkk ah eh, eh, bu ñi doon muuru. daawuñu am comme ñun chance bi ñu am nii am yére yoo xamante ne day fas yéene ànd jamono yére yére olof rek nga mën a sol. Mm-hmm. surtout même booy dem école. Mm-hmm. ah léegi nag am nga yére boo xam ni nga ko mën a sol tàngaay. Mm-hmm. di nga ko mën a sol seddaay nga période bu nekk ak yére yére buy xew est-ce que du loolu moo tax euh, cher bi yeeg yooyu noonu yëpp mu mu yokku. waaw loolu tam mën na cee nekk ndax xam nga rek boo bëggee lu baax moom foog nga génnee xaalis comme niñ koy waxee. mais tamit euh, wax nga dëgg sax parce que yuñ temps yi njëkk ya ay olof rek nga mënoon sol jël sa kii ñoo ko yooyu nga mënoon sol waaye comme que léegi moom da ngay dox fu nekk di yoo xam ne dañuy ñëw ay yére yoo xam te mën nga koo sol tàngaay mën nga koo sol seddaay léegi na xam nga rek ku nekk moom yaa <laughs> ma day jéem a euh, maintenir euh, ay ay ay prime daal ba di defar yi gën a rafet mm-hmm. te nit ñi dañoo bëgg lu rafet ibaad dafa bëgg lu rafet moo tax dañuy xool nag kii jaay lu rafet <laughs> ñu dem jënd ko ban ban koor nga mos a jënd bu gën a cher gën cher xam nga nag ñi seetaan buñ déggee cher bi yaakaar ne ay ay yu fort a fort moo tax ma bëgg ñu xam ko xam ne que ni cherul cher na si ñenn ñi mais quand même loo xamante ne ni mën nañ ko comparer ak lu ñuy euh, ak greffage wala wala wala mèche. si si col bu gën a cher 10 000 la yemoon. te col mm. boobu noonu yaa ma gën a xam muurootuma ko woon sax. parce que sama ngénte nañ ko jënd doon te col yi xam nga rek day am. waaw compré yaa ngi wax mais ñun col yi ñuy muuroo nii xam nga rek 5000. foofu la yem. Mhm. sama col yi may muuroo yi moom 5000 francs. yaa xam nga loolu boo ko multiplier day daal mën na nekk eh, comme eh, kay li muy ay 10 col wala dara am na ñoo xamante si léegi dañ koy def ay nattu col ak yooyu mu bëri bu bëgg a de si si dëkk bi léegi façon yére yi nga xamante ne moom ngay sol parce que am na ñoo xamante ne nii dañuy muuru mais duñ xam nan la soloo. Mm-hmm. dañuy bëgg. gis naa kii sol na yére bii nii man moom laa war a sol même bu chéré sax jaral na ma mën a jëlee jënd yooyu noonu lan ngay wax ci loolu. Ah, loolu moom <laughs> yaa ma gën a xam baaxul. Mhm. nit ki boo gisee mu sol lu rafet boo ko laajee di fu mu ko jëndee mu ne la fii laa ko jënd li ko jëndee dafa cher ak yooyu noonu. yow jéemal léegi tissu bari na fi comme mënoo koo jënd jéemal dem xool benn tissu bu yomb nga jéem a xool modèle boo xoolee modèle nga ñëw ko sol. ah yow yow na. <laughs> loolu daal ngay eh, digal ñi nga xamante ne styliste yi dañuy sonn seen sonn seen modèle yi. bu ko ah. defee nag nga jël copier ko dem dem dem. Eh, kii ko non pas sax même pas mais xam nga rek yaa ma gën a xam tey jii boo ñëwee fii. Mhm. gis eh, koo xamante ne loxoom jotul ginnaaw nga ñëw ne ko benn yére bi 30 000 laa ko jëndee. Mhm. ci koo xamante ne day suturlu rek. dëgg la loolu day métti ci moom. dëgg la xam nga tamit yére yi parfois ñu jël tissu yoo xamante ne ni tissu yomb la ñaw ko benn ñaw. Mhm. jaay ko prix yu cher cher cher cher. mais yu noonu nag day du arrangé ñi nga xamante ne ñoom ñooy muur. te nit fi moom kenn doful. Mhm. boo jëndee benn tissu bu yomb dem ñëwee ko ñaw bu cher dem ñëwee ko ñaw bu rafet. Mhm. ñëw da nga koy jaayee jaay bu cher loolu day metti tissu bisaab après nit ki bu ko solee ba mu kii dina xam ne lii nii. du gis nga nit ñi benn yoon dañuy sol yére bu ñu solee yére te ñoo solal yére yàlla. esthétique yi ñoo tax. merci beaucoup ak dugal tey boo ko solaatee ñu ne ah bii de soloon na ko. waaw <laughs> doo xam na ngay def même ba ci yére yi ñuy demee xew sax. mooy loolu moo tax dañuy léegi dañuy préférer dem jënd seen tissu. dem ñaw ko. sol buñ ko solee bu ñu paree teg ne demaat jëndaat bi leen tuuti ñaw sol. mooy loolu billaay dañoo sonn. billaay dañoo sonn ndax si snap yeeg statut boo sol benn yoon rek mu xew. mu xew te bu fekkoon ñu bàyyil la ko tax. déedéet waaye da ngay statut ñeneen ñëw statut waat la statut. <laughs> screen la ba sax <laughs> nga sàppi statut. ba yére bi xew. waaw xam nga tamit euh, bu njëkk dañ doon wax que ni moom eh, cheru sànq maa ngi koy wax si biir wax mhm. que ni boo amee jabar eh, jabar buy muur da koy jëndal col bu 500 rek moom mu muuroo kii waaye léegi affaire yi changé na bu baax a baax ndaxte ibaar yi ñoom boo xoolee sax li ñuy solo moom moo gën a cher ndaxte bu ñuy jënd tissu. Mhm. kay nga xamante ne nii mun na sol 3 mètres yow mënoo sol 3 mètres parce que wala mun nga ndaxte daf foog loxo yi gudd wala kii foog mu am eh, foog mu jot daal mhm. maanaam tissu bi xam nga rek yaa ma gën a xam boo bëggee jënd tussi il faut ngay jënd lu mat pour di ko mhm. ñaw ñaw bu mat ñëw bu yaatu ñëw bu rafet parce que ibaadu yéreem na yaatu na rafet loolu moo tax xam nga rek waaye tamit <laughs> loolu ni koy waxee rek. loolu mooy tax mu léegi est-ce que gënuñoo gënuñoo cherle waaye xanaa boo dundee bopp bi daal moom bopp bi daal boo ko dundee. boo dundee bopp moom moom moom du cher moom <laughs> <laughs> ndax ñoom benn benn prix bi buñ ko jëndee. Mm. buñ ko tegee dañ koy teg teg teg teg teg. waaw waaw waaw loolu tamit dëgg na mais ñun prix boobu mun nañ cee jënd diis mhm. ba 20 col. waaw chaque jour ñu teg bu ñu neex. <laughs> di changer quoi. di changer bu ñu neex. dafa mel ni temps bi xoj nañu. Mhm. Euh, ba nag ñuy jeexal xam nga duñ jeexal te duñ wax si euh, mais les vallées sont les plus belles mooy émission bii nii nga nekk loo si xalaat. émission bi nga xamante ne moom lañ jagleel jigéen ñi muur xam nañ ne elles sont mais les voilées sont les plus belles. Mhm. yow yaa ngi nii rafet jonga ma macha allah. Mhm. Ah, yaa dàq soxna mag si fuuf te moom <laughs> waaw léegi lan ngay wax ci émission bi. émission bi émission bi ma rafetlu la ndaxte dina tax ñu mën a gën ñu gën a mën a xam ibaadu yi seen mode de vie ak ni ñuy dundee ak yooyu yëpp. day tax day euh, gën a may day tax day gën a may ibaadu yi daal. Euh, fit ñu mhm. mën a génn di wax seen ay kii yooyu parce que mooy loolu dañ daan wax du génn warul génn mhm. wala lii yaay na mhm. mooy loolu waaye dégg xam nga de jamono yi daa changé. yaa ma gën a xam émission moom émission bu ma rafet la émission bu ma neex la yeneen émission yi dañuy jël yóbbu nit ñi salon defar leen seen bopp. ñun nag dañuy ñëw defar sa kanam muur la. yow tamit nga rafet bay wéeree. <laughs> yaa ma rafetal de yaa ma def nii. waaw da ñëw nag rafet ba pare. <laughs> alors euh, lan ngay tàggatoo euh, wax ñi lay seetaan euh, ban conseil nga leen di jox surtout jeunes yi nga xamante ne nii fan yii dëkk bi xaw na dëgër bu baax a baax temps yee passé ñu ngi doon gis ñu doon dem ci gaal gi ah. fan yi tamit da nga gis ñoom dañuy toog rek toog kër ga rek gis nga duñu sabablu lan nga leen di wax mu nekkaale sa tàggatoo. Ah, léegi moom dëkk bi moom métti na métti boo xamante ne moom il faut nga am jom am fit am fulla am fayda am na yoo xamante ne moom kenn bañ la ciy dugal ndax gaal gi moom du solution gaal gi du solution ndaxte li nga doon jël di ko dem passé ci gaal gi tey jii boo ko tegoon boo ko defoon ci dëkk bi nii dem jëndee ko ay bagage wala dara boo ko jaayee tey jii mun nga cee am dara ndax gis nañ fi jeunes yu bari yoo xamante ne ci foofu nañ jaar ci la nekk mënoo commencé fu rëy ci kaw wàcc ci suuf déedéet da ngay commencé ci suuf di ci kaw loolu daal laa ni digal ñu. jigéen ñi nga xamante ne nii tamit dañuy toog rek bëgg di xaar góor defal leen lépp. <laughs> loolu bëgg lu yomb la rek bëgg lu yomb la jigéen moom da war a jóg takk sa sër di daan sa doole. bañ a xaar góor tamit bu nekkee ku góor ki sax mi ngi lay defaral yow jéemal am loo def ndaxte dëkk bi xam nga rek daa tëradi àdduna moom daa tëradi jéemal xool loo def. di sabab lu jéem a te pare yàlla dex dangay am ay doom. Mhm. ngay am ay doom te góor ma mënul def lépp yaa ma gën a xam il faut ngay jàppale tamit. waaw <laughs> loolu di jàppale tamit lu baax daal ci kër gi. Mhm. bul toog di xaar ko góor gi di def lépp lépp lépp rek. ñu bàyyi la nga tàggatoo tàggatoo euh, ci ñi leen xamante ne ñoo nekkoon ci lay seetaan. waa maa ngi lay remercier yow mii soxna Mariam Silla di la remercier bu baax a baax a baax tey ji bu la neexoon nga ne doo ma jël. mais danga ah, ma de. danga maa jël. waa <laughs> waaw ma ne ma tamit ma defaral maquillage nga apprécier bay bëgg a dee di gërëm tamit samay waajur ñoom tamit euh, kenn demoon ñu des di gërëm tamit sama mag bu jigéen aram moom moo tax tey ñu am fit ndax moom moo ubbi salon bu ubbi woon salon mën nañ wax ni du ñu mën a yegg si fii ñu yegg si yëpp. parce que dañuy toog tamit di xoole nii rek mais dafa ubbi salon jël ñu ñun ñii ay rakkam teg ñu ci salon ba ñuy pratiquer di pratiquer ba tey mun dañuy def nii ñu koy sant di ko gërëm gërëm tamit caane nga xamante ne moom tamit mhm. moom moo mun maquillage yi rafet di ma jàngal tamit ba xam ba sama loxo bi gën a mokk di gërëm ñëpp di sant ñëpp dina gërëm téléspectateur yëpp ñuy seetaan. gërëm tamit jëkkër sant naa la gërëm naa ko ndax tey jii moom moo ma Euh, ubbil yoon daal moom moom ma bu la ni bu ko neexoon mu ne ma doo dem mhm. liggéey par samedi fii ngay toog mën a yow ndax ñëpp xam nañ samedi moom couple yi mhm. yow ko moom mhm. fii ngay toog ci man toogal sama ah, wet samedi sa yi moomuñ déedéet moomu <laughs> couple yee ko moom toog <laughs> waxtaan mais samedi yi daf may bàyyi may dem di liggéey xam nga rek mooy loolu dimanche bi daal ndaa xam naa ma nekk fi kon toppatoo ko yaa ma gën a xam maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm. alors ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje euh, beneen yoon ak euh, beneen voilée ci seen émission mais les voilées sont les plus belles toutes les femmes sont belles mais les voilées sont les plus belles.